Fuck no bi ñëwaat na ki mën làmb te saf amateur yi saa bu tëggee ñu kontaan moo ñu woo le 20 mars arène nationale grand combat bi war a dox ci diggante Gora Sox ak Fils de Balla première édition drapeau bi ngoone borom confrontation waaye jamaykee yemu fa ndax combat spécial bi war a dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin combat boobu la ñu nag daal koy tuddee soxna Aïda mu Serigne Saliou boobu ba tey wulli wulli waat du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Calcio drapeau la lutte waaye nag wéetul ci bés bi benn yoon mi ngi ci ànd ak Kayor immobilier huile Jador jamaïcain ak waa Jampro ñi dañuy sargal jigéen le 20 mars moo tax ñu ne dugg bi nag dinañ ko yombal supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge 10 000 francs kon mbokk yi rendez-vous le 20 mars ak Jampro arène national kenn du fa mbokk yi suivre Lutte TV point comme ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare ki ñu jàkkaarloo nag mooy Dame Sène borom paquet bi ñëw fii BCEAO seet si ko fii ci écrém di jàmbaar xam nga jàmbaar la nekk sax xam école de leen manga yaa ngi jàmbaar léegi mu ngi jàmbaar ñu fekk ko fi fekk fi tamit ñi nga xamante ne ñoom la seqal liggéey bi di waa écrém ñu war a waxtaan ak moom rek ndax nañ ko gis mu bëree morom moromam yëpp yaakaar naa ne am nañu combat ba bëree ñii bëri nañ ba pare ñii ñi ngi waajal seeni combat mais boo léegi dégguñu ko mu am combat donte ñu ngi dégg nag ay démarches di tudd di dégg ay combinaison wax daam seen ak diw daam ak diw ñii mu bëgg leen ñii bëgguñu ko waaye dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokki internet yëpp bu ko defee ñu waxtaanee loolu comme laa mu ni ñu koy waxee rek boo bañee ñi ñi ñi ñi dañ lay bañ ci loo nekk. salaamaaleykum ginnaaw bu ñu sant yàlla jul si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm nuyu waa parcelle yëpp waaw nuyu amateurs yi ñuy seetaan nga bokk internet yi ñu seetaan yëpp di nuyu waa jàmbaar université waa parcelle 1 ba 26 di nuyu sama kos yi ku waaw gërëm gaa yëpp Papa Sow Modou Garga 2 mbëri fi nekk yëpp Ousa 2 waaw di nuyu ñëpp. yaa ngi jàmbaar léegi wala yaa ngi école leen manga ba léegi. maa ngi parcelle. tuukul waaw mais parce que tey boo xool boo boo xool ardo mi bëri démb sax presque mu ngi man maa ngi bëri récépissé maa ngi def mais maa ngi jàmbaar waaw. macha allah loolu am na solo xam nga yooyu foog ñu koy leeral. waaw foog mu leeral waa école maa ngi def yëpp nuyu paa bi père maa nga père Mbar sama manager di nuyu fa nekk yëpp di leen bëggee waaw di nuyuwaat waa parcelle 1 ba 26 di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokk état du Sane yëpp di nuyu sama grand Abdou Tall Abdou Moustapha Papa Gueye Mam Ngor ah Abdou Tall kooku sama lépp la samay mbir da ciy baax combat bu ko bëggee jël bu dee daam bul jël damay toog loolu am na solo ñu ngi koy nuyu moom tamit bu baax a baax Abdou Xarañ Lo ak sa waa nga xamante ni li may wax rek lu mu fekk yàq ko muy muy muy am na ma sa ba papa gi sa patron. papa gi sama patron léegi rek ñu ngi déggante munoo wàccagul mi bureau. Serigne Kine la demee. dañ la gis depuis sa combat ak Ndandi Fall yaakaar naa Ndandi Fall nga mujjee bëreel. waaw Ndandi Fall laa mujjee bëreel mois de juin la cinq juin bi passé waaw boobu ba tamit. ñu ngi entraîné nekk si li ñu war a nekk ànd ak suñuy grand ànd ak suñuy coach di liggéey di waajal di wax ñun waaj ñu combat ñun suñ carrière la ñuy waaj waaw carrière luñ ci fekk ñu jël waaw. lan la promoteur wax boobu ak léegi. waaw promoteur ñi démarché boobu ba léegi ñi démarché adversaire mais li ci ëpp adversaire la yàqoo parce que làmb moom foog naan du yàqoo ci ndax tamit ay ndaw lañ te ay xale lañ toll suñu ndaw war a war a mën suñu bopp kon tamit bu gaañ bu gaañ démarché ñu war a liggéey dañoo war a wane suñu bopp. joxe accord ñi ñuy seeti pour ñu bëri ñoom joxe nañ accord mais à chaque mois buy revenir du ñu am luñ doon wut duñ ko am quoi na mbër yoo xamante ne jot nañ la ko proposé parce que man promoteur woon na ma dama wax sa combat ak Ndiaye Tine mais combat la yàqoo. waaw maa ngi Ndiaye Tine mën naa la yàqoo parce que Ndiaye Tine mën naa ne daan sax proposé nañ ma ko vraiment moom kon tamit mu jógee ci benn victoire moo kii Babacar Senior adversaire yi ñu jógee bokkul ñun ñaar suñu palmarès yemuñu. man ñi ma daan ñëpp ñu ngi ci làmb gars yi xam nañ leen tamit moom tamit ñi mu daan man xaw ma leen. mais làmb mag parfois nekkul palmarès bi mooy tax nga bëri ak adversaire bi mais euh, dayu mbër bi parce que bu ko euh, euh, par exemple Bou Siteu Laurent Laurent benn combat Bou Siteu bëri neuf jël ko. mais coow la taxoon mu jël ko. tamit sa combat ak Ndiaye tam coow la. coow la du coow du coow de du coow de yamuñ ci lenn maanaam man day bëgg bëri combat soog combat boo xam tey mu ko jëlee. su ma nee diw laay bëreel ñu ne ah Dame Sène am na combat. Ndiaye de bis boo ko jëlee ñëpp danañ am nga ko. non bi nga jëlee boo ko daanee dañu xamoon nañ ko pour sama tooyoon suñu tëj fenêtre boobu wax ci leneen. non man kay moom foog ma laaj. fépp kay laay dugg. yow fépp ngay dugg yow yaay borom yaay Modou Lamine loolu neex defal. mais tamit mais loolu làmb la waaw làmb la ndaw la ndaw laa mais tamit am na adversaire yu gën tew quoi yu ma war a bëri. waaw yu ma gënal. Coly Faye bëggoon nga ko trop. Coly Faye trop pour wane ko mais tamit xam naa moom gunge mbëri moo ko gënal sëgg bëri. lu ngeen bàyyi ku ngeen bi ko defee mi ngeen wax gunge mbër lay fi nekk. non du affaire de loolu sax mais dañoo gis ni carrément chaque dimanche mu lëng mbër andi te buy ñibbi yaa ma gën a xam. waaw tamit mbër la xale la ci ñi muy àndal ay xale lañ ay moromam lañ pour man damaa gëm ni ni muy def def ñooñu ñooñu war nañ ko mën defal waaw ma gis tamit waxuma pour mu jël ma nag mais damaa jàpp comme xale la daal toll ji buntu ndawam war a liggéey ñu koy proposé na adversaire pour man da ko war a jël faxas liggéey xam ne ci liggéey la nekk day faxas ni nga que ni nga wax sa xam tayoo ko waaw mën na jël faxas xaalis bi. mais làmb lay faxas. xaalis lay faxas def ci def ci daawanam. loolu la faxas yow bu la bu la jëloo. non mënuma faxas. mën laa daan man li may liggéey booy sama génération kaay ma xamal la Lamine ñi gën a coriace si laa bokk Lamine man sama ñaar defet yi ma am yëpp koo xool li nga li nga xam ne carrément est confiance ma daan mais man mbër songu ma daan ma man maay def lu ñorul wala mooy loolu mais yàlla baax na. kilifa laa daan kon. mënu ko amul xam-xam bi amul bagage bi ma daan. ngay minimiser. du leen lu ma daan amu ko. sa diggante gàmmu gi doon nañu ko dox daa mel de. waaw gàmmu gi sore nañ trop Fallou moo ko bëggoon maa ngi koy nuyu passage sëñ Fallou waaw son nañ trop tamit pour combat bi taxaw mais tamit à chaque fois fa la yàqoo. ci gàmmu. la xeex de. man loolu laa bëgg. loxoom boobu ñu mas a dal ñëpp pare nañ ci. 2015 daa gëj aaroo. dama bëgg a demoon Ardo. da ngaa nam Ardo. ci sama. gàmm moom boo ko jëlee di nga dem Ardo. sama troisième fa trop. gàmm moom soo ko jëlee di nga seeti Ardo. dama dama nam yi. Hmm. waaw te foog nga bëre combat bu may demee ma yóbbu ci gants borom gants yi. surtout gàmm kan ngay jàppale sa sa sa adversaire. ambulance bu Thiès. lamb ji neex la. bërëkat la am na doole chaque fois day indi day indi bu rafet man tamit chaque fois macha allah simbi ko li may liggéey carrément ak samay su ma ñëwee xam ne carrément kii mooy loolu. a boole ak ambulance. ambulance comme ma romance la doon yoon ñuy doon ay ndaw ñaari xale nekk fi naan dañuy romance lu ñuy romance temps bi nekk fi xale yi nekk fi war a bëri ñoom ñaan dañuy romance loolu saxewul daan na mais mi mel daanul ndax tamit xale du xale du may romance xale day jël say morom bëri ñoom te man dama bëgg bëri sama daan sama morom daan sama waaw daan naa sama morom yëpp sama mag laa bëgg daan. bu ambulance. bu ambulance combat yi fi neex bëri na gis naa fi ay am naa yenn booy yu bàyyi yu bàyyi kii dem jëli ay paa yàlla ma yàlla musal ci bërëb paa nga bëri. yu bàyyi kan. yu ma fi bàyyi dem jëli paa yàlla ma yàlla musal ci bërëb paa ngay bëri ñëpp ñu ni. cëm nga ko kéwal mënoo ko bañ sax. kéwal gëj naa victoire de. maanaam duma bañ duma bañ mbër. yaa ngi ni bañ tam Ndiaye Tine. Ndiaye Tine non Ndiaye Tine ko de du caaga dama ko bañ de mais dama bëgg lu ma gënal. kéwal boo ko bañ tey bu ëllëgee nga bëgg ko bañu ma ko mais ko gën. kéwal tamit dama bëgg lu ko gën. kéwal yéen ñaar lamb la même Ndiaye moom la. bëgg naa lu ko gën. yaa ngi kéwal combat soog la. bëgg naa lu ko gën. nee ma bañu ma ko dama ko bañ de mais dama bëgg lu ko gën. lan laa seete wax la Youssou Ndour nga daw. Youssou Ndour foog naa ci moom la yàqoo. combat bi nee na ci yow la yàqoo de. non non non ma woowee baat la tontu bëgg nga ma leen dem leen waxtaan ak moom d'accord après deux jours trois jours ma xëy dimanche lundi ma dem saal <laughs> foog naa kii moo gis garga dama ko xaw ma góor soog moo dugal ci ci ma xool gis ni combat mbay ju taxaw na mais tamit lamba ji kenn mënul comprendre léegi ni mu demee te daa am yoo xam ne ñoom du ngay soit promoteur am bëri yoo xam ne ay choix promoteur lañ man daa bokk ci mbëri choix promoteur yi pour ñoom ñuy seet si la yàgg dañu ak daam seen pour ñoom ñoom ñoom moom bis yi bis samay bis la Gamou Gueye moom du choix promoteur daa war xam loolu. ngir Gamou choix promoteur. choix promoteur choix mbër la. day indi cosaan ba pare day indi mbooloo. choix promoteur. si promoteur yi dañuy kontaan ci moom ni ñu koy tëgg. choix promoteur pour man xale la daa war a jël commencé te mënul jóge ci defet daanu yaa ngi nekk fu ni day bañ mun am ñi mu bëgg na jël ñi fi nekk ñi naan bul jël combat bi yëpp ñu ngi jël combat ñi ko naan bul jël tam seen ñu ngi jëlee combat kon moom il est temps mu ñëw réunir wàcc terrain ñu bëri. moo jëbu yof moo jëbu lu neex loolu njar la ñaari bërikat la. moom kay day bëri na xeex. loolu laa bëgg. waaw loolu laa bëgg man dama bëgg kuy bëri di xeex di dugg di génn di bët di jarngandalu man damaa namm saaru mbëri saaru mbëri yooyu noonu mbëri làmb fii bu baaxul nga làmb feneen man ba tey bëreeguma ndax bëreeguma ak bëreekat ñooy bëri lépp maal maal daax bëre mu jaral la ko joxee yaakaar nga amateur bi waaye yow waxuma la amateur bi képp kuy bëgg seen làmb yow daal bëgg nga Modou Dia bëgg nga ambulance bëgg kan bañoo caat Moussa Ndoye bi teg deux défaites bañu ma ko dama sonn ci mbër defagul carré palmarès bu rafet ñoom la koy proposé dañoo proposé adversaire yu baax ñoo def palmarès yu mu bëri ak ñoom. tamit yoon la te tamit man 2015 laa dugg ci làmb Lamine 12 combats laa def 10 victoire. Pikine koo fa soxla. Pikine Pikine kan laa fa war a bëri maa ngi tonnerre doon dox yàlla dogal moom combat ci combat moo gëti moom naa ne tey bu dul koon ni mu demee nii tey combat moo gëti comme suñ combat sotti na. Lamsaar koo fa soxla. Lamsaar Siteu laa fa soxla. Siteu làmb boolewul. ah mais Siteu moom koo fa soxla nga wax. man la si. koo xam ne lamb boole ne leen nii. waaw kay ku ñu fa lamb booleel gisuma ko fa nag. ka nga Tidiane Faye. Tidiane Faye. Tidiane Faye lamb yërëmtalu la. lamb ji ne la lamb mag la. lamb mag la. lamb yë dese nañ nga la lamb yërëmtalu la ah. Tidiane Faye jeexal na hmm. ah Tidiane Faye. licence bi lañ nangu ko. lañ nangu licence am. naka jàmbaar liggéey bi nu mu demee nii ak saison bi. waaw jàmbaar mu ko gis liggéey bi ni mu demee nii nga xam nii lay déroulé parce que tamit rek. ku nekk fii sa bopp ngay liggéeyal ku fi ñëw ñëw la fi Papa Sow ñëw la fi Modou Lo ñëw la fi Gora Sock ñëw la fi keneen ñëw la fi Garga ñëw la fi Franc ku fi ñëw sa bopp nga fi ñëwal muy USA 2 ñëpp ñu ñëpp on ensemble liggéey liggéey bu métti njariñ ñëpp la jàmbaar pour jàmbaar yi la jàmbaar nekk parcelle yëpp ku ñu gis bopp ñoo ngi entraîné ndax tamit gars yi ñu ngi teg ci moyen bu baax maam père ba seeraanul dara Mansour ñoom ñëpp dañ ciy def seen seen lépp coach yi tamit seeraanuñu affaire lépp ngi tegu ci yoon di soo paree fii musculation bi maaf sa Pape Diop ñoom tamit dañ ciy jàpp ci bu baax. Papa Sow lu muy xaar. Papa Sow waaw sax instant nii Lac de day xaar. Lac de Guiers woon nañu daan ko. ah mais tamit sàppale amul. Lac de Guiers kese nga gis ne. Lac de Guiers doom mi fi nekk nii Papa Sow di attaqué. Papa Sow di attaqué. na ñëw jox ñu suñu revanche. mais moom Siteu mënul bëri kenn ku Papa Papa Sow tamit mu bëri keneen ku Siteu ndax lamb yi foog ñu tàggoo ñoom ñaar pour man sama gis-gis ndax tamit amateur yi ko doon xaar bëri na lañ ci doon xaar lu bëri gisuñu ko. loolay lamb ji ko jox Papa Sow. jën non jën day xaar la. Garga 2 maama la loolu la ñaari songkat la ak ñaari tërukat Garga 2 day song tëru maama la day song tëru day xeex day bëri Garga 2 day xeex lamb yooyu dina métti de. dina métti ci yéen. dina métti. ci yéen non non métti ci li ñuy liggéey nii gis nga garab liggéey ci dara mën naa métti ci moom. moom la man kay mën naa métti ci garab non mënul métti ci du garab de. garab de dàq lépp moo dàq bëre moo dàq daan moo dàq xeex. lépp lu lamb soxla daal garab de ko. lépp moo dàq garab de bëreegul li ci lamb. est-ce Mama Lamine Garga da gën a nekk xale Garga di ko Mama Lamine di ko ëpp doole. kon Garga da moo ëpp doole. Garga moo moo gën a nekk xale. Garga nu mu mën a nekk xale Mama moo gën a xale. non non bàyyi si caaxaan yi ne. sëñ Tuubaa Garga a nekk baax na loolu am na solo promoteur yi loolu leen di mujjee wax ak lan ngay tax. waaw di wax gars yëpp ñu ngi ci ñu war nekk. waaw di xaar promoteur yi ñëw demal a waaw loolu bëri bu kenn baam la yàgg yag xam. Franc xam nga koy daan. xam nañ koy daan kay. noo ko xamee. waaw ah, tamit yow xam nga ne yi daan Franc lan lay daane sox. Franc naa teg sama bakkan bi Franc lay daan. Franc moo mën sox. lépp moo mën moo ëpp lépp. kon baax na wóor say mbokk moo gën a ñeme. tàggat tàggat sant sama gars yi nga xam ne dañ may jaaxoo ñu la Papa Gueye moom sama lépp muy ci séeri kiné séeri kiné mais nag temps maa maa ngi ci kiné quoi temps kiné ma sama mais moom mooy mooy directeur général bi waa Mame gor damay taxaw sama affaire bu baax Modou Yàpp ñooñu ñëpp dañu may jàppale Aline Fall Espoir Diakara sëñ Modou Marseille Dior Abtal sama waa ji Mansour Ba père ba Amsi Amet Boy Malal Zodia Aldo sama tons waa di bëgg waat sama gars yi sama mafia waa kafe gi di leen baax waa frontière bi adversaire Ousseyn Kamal fils de Modiap <laughs> waa di nuyu waa waa kafe gi adversaire Ousseyn baa ngi mu laa boo jox Ousseyn ki yàlla daal enfoncé de ki day enfoncé maa sama buse bi buse bu ndaw la waa di nuyu waat jotaay bayaas waa marché Dior sama mbokk gànjol gànjol yëpp waalo waalo yi di leen sant di leen gërëm jaamur jaamur yi waaw gars yi gis naa ñuy taxawee samay affaire sant bu baax di leen waa Saloum maa ngi di bëgg wér a wér naa ñëpp nuyu ñëpp di ñaanal Modou jàmm tawfeex di ñaanal yàlla def ko tan bu tan bu baax ba ñëw dellusiwaat bëri combat bi daan Ama xale bi ñëwaat na ki mën làmb te saf amateur yi saa bu tëggee ñu kontaan moo ñu woo le 20 mars arène nationale grand combat bi war a dox ci diggante Gora Sox ak Fils de Balla première édition drapeau bi ju ngoone borom confrontation waaye jameekee yemu fa ndax combat spécial bi war a dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin combat boobu la ñu jël nag daal di koy tuddee soxna Aïda mu Serigne Saliou bés boobu ba tey wulli wulli wat du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Calcio drapeau Mohamed Prince le grand marabout jeex jàmm su lay gaynde combat boobu nag la ñu jagleel les femmes reporters de la waaye nag wéetul ci bés bi benn yoon mi ngi ci ànd ak Kayor immobilier huile Jador jamaïcain ak waa Jampro ñi dañuy sargal jigéen le 20 mars moo tax ñu ne dugg bi nag dinañu ko yombal supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge 10 000 francs kon mbokk yi rendez-vous le 20 mars ak Jampro arène national kenn du fa